bi shaytaan rajim bismillahi alihi wa sahbi zawi ridwan wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokki jullit mbokki taalib yëpp di leen ziyaare di jiital ci néew bi a Cheikh di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te ànd ko di ñaanal suñu kilifa gu baax ga muy Cheikh Saliou Touré suñu borom dooli koy tawfeex gi yërmande ak njëggal boole kook sangam bu baax ba muy Serigne Saliou Mbacke di barke Cheikhul Khadim ñoo ngi nuyu mboolem gi yëpp di bi Serigne Saliou Fall nga xam ni mooy jëriñ ji di ànd ak yéen ci seen émission Jaalibatul Buruur di ko ànd ak seen mbokkum taalibe Zaid Ba ci dimanche bu nekk tey nag ñu ne yéene dalal mbokki taalibi yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci bokk Majmahun Nurayni di ci jiital Serigne Saliou Fall mi nga xam ne mooy jëriñ ji di nuyu sëriñ Serigne Baba Niang mi nga xam ni moo topp ci moom bokk ci jëriñ di leen ziar baax di leen dalal ci émission Dialibatoul Burour kon ni leen ko waxee woon ñu ngi jàppoon bi mu jëm ci diggante Majmahun Nurayni ak sëriñ Saliou Touré ndax lool lu war a yaatu lool lu ñu war a xam na xam naa dañuy bàyyi mbokki bi ñu nuyoo bu ko defee ñu doog a jëm ci waxtaan wi kon sëñ Saalihu bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi siyaare gannaaw bi ñu musloo ci seytaane ñu ngi lay nuyu baax sëñ Zayd yàlla bu baax moom mi nga xam ne moo ñu may. ñu mën a teewee émission bi bii nga xam ni léegi mu def ab diir bi nga ko tàmbalee Dialibatoul Boudour damay tàmbali samay kàddu ci nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan suñu borom moo may ko ak wéram te mboolem lum naalal maamam mu may ko mu àggale ko ci sagoom di nuyu ak siyaar Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré moom mi nga xam ni mooy jëwriñu sëriñ Saliou Touré di rafetlu bu baax itam am mbégte lool ci teew fii gannaaw bi ñu doolee ñaan sunu sang bu baax boobu muy Cheikh Saliou jure di ñaan suñu borom doole ko yërmande ak ngërëm ak njëggal doole itam taw fee xam foofu ñu fas yéene indi aw waxtaan jëm ci moom ak daara ji di Majmahun ni ñuy ñaan itam sunu borom bi nga xam ni lu jub moo ko jubal sunu jotaay bii mu boole ko ci jotaay yi gën a kawe yoo xam ne yiw yu rëy rëy ñoo ciy balee mun a defal sunu àddina defal sunu àllaaxira ñun ak mboolem jullit ñi kon maa ngi lay nuyu bu baax a baax di sant baax baax jërëjëf. comme ni nga ko waxee rek ñu ngi lay dell nuyoo bu baax a baax di dalal ci émission Dialibatoul Bourour bi kon xam naa dañuy jox kàddu gi sëriñ Baba Niang mooy mu nuyoo bisimilah. bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa a baax a baax di sant bu baax ci teewaay bi ak invitation bi ci jotaay bu mag bii ngay def muy Jaalibatul Buruur di ñaan suñu borom defal la ci tawféex di sant bu baax a baax a baax itam ci doxalin bi wax dëgg yàlla ñëpp ñu koy rafetlu di sant bu baax a baax ni ko jëwriñ sëriñ Saliou waxee tey ñaanal sëriñ Mouhamadul Mountakha suñu boroom yàggal ko fi loolu te ndax moom bu fi yàggee rek lépp dana jàkk te lépp dana baax di ñaanal itam xarifa Baye Fall yi di fari xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall suñu borom yàggal ko fi loolu teen ak wér di ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Touré mi fi nekkal sëriñ Saliou Touré tey yan bi oyof ci kaw ci boppam ba mu àggale liggéeyu waajuram bi fu kawe njortam di ziyaare tey ñaanal mboolem daayira Majmahun Nurayni ak mboolem murit yi nekk Thiès di sant bu baax a baax di ñaan sunu borom lépp lu ñu fi wax yàlla doon njariñ bu maasee mboolem taalibe yi ak mboolem jullit yi barke borom Tuubaa jërëjëf. waaw kay yi am na solo loolu tamit ñu ngi nuyu sëñ Mbàkke mi nga xam ni moo yor wàllu liggéey bi di jàllale émission bi ak mbokk taal yi mu àndal yëpp. de ñaan suñu borom defal leen ci tawféex ngërëm sëriñ bi kon xam naa suñ Saliou balaa ñoo jëm ci euh, Majmahun Nurayni xam naa dañuy dañuy njëkk a laaj suñu question bu njëkk ci Serigne Saliou Touré mi nga xam ni daanaka ku tudd Majmahun Nurayni da nga ko da nga ko tudd boo ñu mënee indil ci moom Serigne Saliou Touré rek maanaam ci dikkam gi mu dikku dikk Thiès ak liggéey bi ko fi Serigne Touba liggéeyloo nga xam ne dinañ mën a xam ci moom dara tuuti balaa ñoo ñëw ci diggam mañ moo loolu bismillah jërëjëf sëñ ci laaj bi loolu moom am na solo ndax sëriñ bi man boog jataay yi ma fekkee yëpp ñu ñu moom fàttali nañu ci sabab nañu ci dëkk bi li ko tax a jóg depuis ma nekk ci bopp liggéey bi ba jataay yi ñu mujjee am ak moom saa bu nu jataay ak moom danañu fàkk li tax mu ñëw ci dëkk bi kon daa mel loolu du ko ñoroon la ñor gi nag li ma jàpp ne mooy tax mooy ngir nit ñi mën a xam dëgg-dëgg moom lan mooy taxawaayam ak nit ñi mën a xamit ne moom taxawaayam xam na ko te saa bu xëyee ci la nekk dafa wax ni sëñ laat moo ko woo boobu mi ci sëñ Saaliw di ko dawal moo ko ne ko Cees daa am nu mu bindoo Tiwaawan daa ne ci wet gi kene ba nekk ci wet gi Njaasaan nekk ci wet gi muy dëkk boo xam ni itam capital la ci eh, jàngu bi jamono yooyu église bi gën a rëy ci réew mi ci dëkk bi la nekkoon ñu am fi doole lool mu ne ko bëgg nañ mu ne ko ñun kenn ci ñun moo fa doon dem kenn ci doomi Sëñ Tuubaa yi moo fa waroon ñëw toog fi daan ko waaye bariwunu ñu fi des bariwut ñu bëggoon laa wuutale sunu jëmm nga dem nekkal nu fa mu ne boobu Sëñ Blaat dane ko waaye waxtaan wi njëkk muy yàgg dangay dem seet sëñ du Khader ngeen waxtaan ci nee bi mu demee sëñ du Khader sëñ Abdou Khader ne ko dañ laa bëggoon def limaam imaam ci dëkk ba mu ne ma biñ ma waxee loolu dama bañ dama lànk ne toog ci wetu sëñ Saliou di ko dawal ba faatu moo ma gënal dem ci réew wu taax mën naa faa sax yàqule li ma doon liggéey noonu ñu topp ci sëñ Saaliw topp ci gannaaw gi sëñ Saaliw xamal ko ne ko loolu ñu bëgg de bu ma sañoon nga defal leen ko ndax dem ci dëkk ba wuute wuute nga nekk sama daara ji ñooyam génn taxawaay sëñ Blaat wooluwaat ko ci ñaareelu woolu gi ni ko yabaluñ la Cees ngir nga doon fa représentant donc waaye dañoo bëgg nga dem àggale leen ci yàlla daan ni loolu lañ ma wax may doog a nangu muy doog a nangoo ñëw ci dëgg bi yooyu itam am na yu mu dajeel ndax li lay won rek nii doomi sëñ Tuubaa yi réerawuñu ko sëñ Tuubaa sëñ Omar yàlla na ko suñ borom dool li njéggal ak ngërëm dafa nit ci li wax ni fukki ñaar fukki at njëkk sëñ Sall di ñëw Thiès ñoom ñaar jugee nañ got di ñëw marché marché marché marché mag di ndugg si boobu moo doon toggal dongay sëñ Sall bi moo moo leen daan nduggal bokk nduggal bokk dama takkut ba xam moo daan toggal waaye moo daan ñëw Thiès ndugg dellu ci daara ji yóbbu ko fa nee na bi bi ñëwee ba tollu jàkkay murit fii jàkkay murit nekk tey sëñ Omar Diouf nee na sëñ Sall ne ko barab bii ngay gis de sëñ tubaa jox na ma ko waaye àggagun ci nee na loolu am na bañ bañ dawal ñaar fukki at xaw ma fukki at nee na ñu ko fii doo ko indi daan ne kon daa mel ni loolu moo sababu ñëw ci dëkk bi bi mu ñëwee ci dëkk bi itam ak murit tumaraanke woon na fi ndax murit daan na sonn lool ci biir dëkk bi dëkk bi li fi Cheikh Ibrahima di yàgg yàgg bi mu fi jógee dem njaarim day mel ni ak murit xawoon na fee tumuranke maanaam du ma wax ni murit amu fi waaye nit ku dëggal sa murit bariwul boobu amoon na sax xew-xew bu fi amoon ay nit fii ci Médina Fall ñu jële woon leen fi yóbbu leen ci ab dëkk danga bañ a tudd dëkk bi ngir tooñ ngir bañ a yóbbu leen ci aw dëkk dóor dóor leen ba kenn ki tëb mi daw tëb ba tànkam damm ci ki ci des faatu ñaan kenn ñaan ñi mucc kenn ki faatu ci te boobu leen na taxoon ñu def leen loolu mooy jëmmal gi ñuy jëmmal seenu taalibe kon daa mel ni murit bu fi amoon itam wane woon ko jafe na ndax néew doole gi ñu fi néew doole moom itam bi mu fi ñëwee mu jëmmal baatu Sëñ Tuubaa ndax dafa fekkoon yu bari bi ay kër dañoo wax ni ay kër la fi daa fekk ay kër mooy diw mooy caali bi diw ñoom ñooy booloo diwey caali bi diw ñoom ñooy booloo diwey caali bi diw ñoom ñooy booloo noonu mu bennale loolu daal benn baata fi am te Sëñ Tuubaa moom nan ko delloo lépp fexe ba dajale caali bi yi ci dajale win boo xam ni maanaam jéggi na dayo mu àgg ci Thiès mënatoo xàmmee diwa bokk fii wala diwa bokk fii lenn rek ngay xam diw sama mbokk taalibe la ñoo bokk Sëñ Tuubaa doxal doxal doxal ci itam ci li Sëñ Blaat bëggoon ndax Sëñ Blaat indiwu ko fi ngir mu concurrence ak këru diine yi waaye da koo indi ngir ñoom jaxasoo bi gën a am loolu firnde ji ma ciy indi ci mujjam booy 2012 jàpp 2013 dafa am dayre bu demoon Tiwaawoon siyaare ji ñu ne leen yéen mënul ngeen a yem kër Sëñ Saal Ture ndax moom toogalu fa yoonu murit dong ñun itam moonu fa nekkal te jëmmi lislaam itam la fa jëmmal kon daa mel ni jëmmal na yoonu murit ci dëkk bi ba geneen yoon gu dul yoonu murit sax fekk si nga ko maam ci biir tànnam tànnam boobu loolu eh, mooy moom nit la nag koo xam ni ku ku ku ku jàng la xam diine umbalew ko ndax daa wax naan fii ba màkka kenn rawuma fi daana àgg sax ci wax ni ba ci samay sëriñ yow rawuñu ma dañ maa ëppalee sëñ tubaa ma topp leen ngir sëñ tubaa kon daa mel ni jëmmal na xam-xam waaye jëmmal na itam ak taalibe mooy lu ma mënti xam taalibe gi moom a gënal loolu itam mooy lim ñu nàmpal mooy lim mooy ñu xamal mooy itam li ñu xam ci moom kon ma tënk foofu rek xam naa sëñ baaba sax moo ci gën a ëpp ubbeeku ci ci wet googu waaw. ok jërëjëf sëñ Saliou kàddu yi am na solo lool te leer comme ni nga ko waxee dafa doon jëmm joo xam ni waxuma la yoonu murid léegi waaye. lislaam bi yëpp la fi nekk nekkuloon kon dañu ñaan suñu borom nangu liggéeyam boobu te dolli ko ay leer ak ngërëm kon ni ko suñ saali waxee suñ baaba comme ni ñu ko waxee rek daanaka diggante Majmahun Nurayni ak suñu saali lañ fa seeni waxtaan waaye xëy na balaa ñëw jëm ci Majmahun loo mën a sof ci kàddu suñ saali yi jëm suñ saali wutule euh, bisimilah suñ sëy <laughs> demee ni suñ saali de sofaat dara ci ay kàddoom du yomb ndax masha allah yàlla ko suñu borom gën a taxaw leer na lool ci mbooleem li taxoon ñu laaj ko ko muy sëriñ bi lim fi accès ak lim fi dajale ak lim fi melal waaye ci gàttal rek sëriñ bi daal lépp loo xamante ni taxoon na doomi Sëriñ Tuubaa yi tànn ko matal na ko ba mat sëkk sëkk ci dëkk bi ci mbooleem ku mbokkal Sëriñ Tuubaa ci mbooleem ku mbokkal diine lislaam bennoo goo gis nitu Cees tey jii ku ne bëgg a mel ni moom ngir jëm ngir ngir ngir di xemmem ci moom sëñ Tuubaa rek moom moo ko fi def yàlla na ko yàlla fayal yàlla na ko sëñ Tuubaa fayal liggéey na liggéey bu rëy boo xamante ni Cheikh Ba Xaadar mag ñëw wax nañ ni ñëw na fi gane si fi def doon fi def benn fan bi mu defee ba ñu waaj ñaan mu jekki jékki ne sëñ bi dama fee mujj def ñetti fan nga xam ne gan googu dañoo wax ni gan gu yéeme la sëñ waxaat dafee toog ñetti fan yoo xamante ni yëpp ci la ko defee bi mu noppee am ku ne ko ku ne ko sëñ Saliou de dañoo bëggoon dëkk bu ñu ne am ku mel ni sëñ Saliou mu wax ci kàddam yoo ko te ku ko xamoon xam ni ay kàddoom néew na mu wax ni sëñ Saliou kenn la mënut a am fenn benn jëmm rek la loolu nag benn jëmm jooju nag sëñ Tuubaa amaloon ko waa Cees la ko cëraloon kon liggéey bu rëy boobu la fi def ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax suñu borom fayal nu ko. ngir jëmmi sëñ Tuubaa. kàddu yi am na solo lool ni nga ko waxee rek daanaka suñu Saliou Touré moom bu ñu doon wax ci moom fii ba suba duñ fi jub waaye day mel ni daara ji di mañ mawoon nooré ni nga xam ni dafa dajale ay élèves étudiants ba tey euh, ñu nekk ci liggéey bi ba mu àgg si fii ak ba àdduna bi yëpp xam leen di leen dégg bëgg nañoo xam daara ji di mañ mawoon nooré ni fan la sosoo ak ci nan la sosoo ak sëriñ Saliou Fall mi nga xam ne mooy jëriñ bi mm, fan la agsi fan la jóge ba agsi ci moom. waa sëñ Seyd laaj nga laaj bu am solo ndax comme ni nga ko waxee ci sa njëlbeenu kàddu mañ ma ko nooree nii mënoo koo tudd te tuddoo sëñ Saliou Touré muy sunu cër nag ñu sant ñu santee ko bu baax a baax muy suñu mbaquus di suñu tawféex joo xamante ni sëñ Touba rek moo nu ko fàggul mañ ma ko nii di mbooleem daara yi nga xamante ni tey ji ñoo lëkkale étudiants yi ak élèves yi ak professionnels yi yi ci dëkk bi Thiès ak li ak li ko wër loolu nag di liggéey bu yàgg boo xam ne ca njëlbeen ga rek daara yàgg naa am ci biiri école ku ne xam na ni tey ji lenn rek ci Hizbut Tarqiyyah ci université la jóge waaye Thiès nekkoon barab boo xamante ni ku mës a tudd daara ci biir école rek dafa mel ni ci Thiès nga ko nga ko gisee buñ ci tuddee lycée Malick rek day daal di doy mm, di Maarif di daara ji gën a yàgg ñu wax ni te mu nekk biir Thiès lu ko jiitu am na daara des professeurs ah, ak instituteurs yu fi nekkoon ñoom it wax dëgg yàlla ñu leen delloo njukkal ndax lu bari jàngee nañ ko ci ñoom. ci daara boo xamante ni mi ngi dund waaye nekk ci biir jàngukaay yi waaye maarif bu ñu ko tuddee ndax day daara ju yàgg joo xamante ni de passage ñu ngi siyaare waale sëriñ moom Lamine Baara mu sëñ Mbàkke Madina nga xam ni kenn la woon ci kenoo daara yi nga xamante ni ñoo nekkoon lycée Malick si waaye ci gàttal rek daara yooyu jaar yooyu di yàgg di dox di dox bay jur école yi ñu xemmemteef ak ñeme di samp ay daara ci biir école yi ñu koy def at yu bari ba daar yi nam daan doonee nam daan doxee dëgg-dëgg mooy bu ñu dajaloowee rek dañuy tànn kenn mu nekk jëwriñ ci ci biir daara ji di doxal ñuy def ay cant annuel di invité yeneen mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir ci biir dëkk bi biñ demee nag ba dox bi agsi ci ñenn ñi ci mbokk taalibe yi ñu gis ni kat daara ju ci nekk amalante ka ak sa moroom te itam dajaloo gi doon na tawfiix joo xamante ni war nañ koo xalaat waaye la jiitu loolu sëñ Saliou Touré moom saa su musaana ñëw ci cant mbooleem ci daara yii yi ma la limal saa su ci ñëwee kat dana fàttali booloo koo xamante ni war nañ koo booloo te di saa su ngeen boolowee na ngeen xam ni man ngeen ko defal ndax man maa waroon a jàpp sama loxo ci kenn ku ci nekk ma xamalante leen kon su ngeen boolowee rek man ngeen ko defal loolu jur. ci mboolem mbokki taalibe yi ci lycée Ahmadou ak Seck ci lycée maliksi ci lycée technique yi fi nekkoon ñu dajaloo kat ne war nañu ut ab fédération boo xamante ni mooy lëkkale daara yi nga xamante ni ñoo nekk Thiès ak di ko wër jamono jooju Serigne Saliou Ndour ñu ngi koy ziar bu baax di ko jox wàccuwaayam moo nekkoon jëwriñu Maarif di lycée Malick ñu ànd ak moom dem ci Serigne Saliou Touré wax ko ko biñ ko ko waxee mu bicc ca lool daal di wax ni liggéey boobu de man ngeen ko defal daal di ñu tabb Serigne Saliou Ndour moom mu nekk jëwriñu mbooloo ma ci jamono jooju ndax Serigne Saliou Ndour moo njëkk a nekk jëwriñu Majmahun Nurayni ci fédération élèves ak étudiants yi bi mu ko doonee itam li tax ñu jël siège bi itam yóbbu ko lycée Malick Sy ndax Serigne Saliou Touré moo nu waxoon bis. ci biir cantu lycée Malick Sy daal di daal di ne nday daara ji mooy mooy lycée Malick Sy te def naa ko def naa ko mu doon seen siège ñuy ziaraat soxna Ami Mar bu baax a baax di ndayu liggéeyu daara jooju ba lu bari rek sëñ Saliou Touré daana ko jaarale ci moom di ko wax élèves ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moom itam liggéey bi itam tàmbali nag di di di màgg waaye len lu ci nekk rek sëriñ bi di ñu ci joyante nga xam ni xam naa sëñ Saliou dina ci gën a dugg saa suñu mosaan ñëw duñ def dara te du ne moo nañu def leen nii bàyyi leen nii waxee leen nii defee leen nii loola ñu nekk ci ba mbooleem daara yi tey nekk Cees ak li ko wër ànd kook ñun di ko di ko di ko def biñ demee nag ba nga xam ni Serigne Saliou Ndour am na bag war a dem université ci lañ defaat assemblée général daal di fal Serigne Saliou Fall mi mu doon jëwriñu liggéey bi di door a nekk door a dugg lycée di def seconde xaw ma première ñu fal ko mu mu nekk ci ci ci kaw bopp liggéey bi boobaak léegi nag mu nekk ci bopp liggéey bi te loolu li ko waral itam mënees na ko leeral mooy dañoo gisoon ni daara yi at mu jot wala ñaari at yu jot la kenn lañ daan def jëwrin ndax bu demee ba classe examen liggéey bi day xaw a bari ci moom ñu soppi jëwrin ci bis ñu daje comité directeur bi daje daal di wax ni liggéey bi kat lu ci bari li koy sooxeel mooy soppi soppi jëwriñ ci te liggéey bii kat day liggéeyal Sëriñ Tuubaa boo xam ne war nañ koo jëmmal nit ñi jaayante ci ñu wax ne bis ni ki tey Sëriñ Saaliw na jaayante yor jëwriñ jëwriñu liggéey bi ba faw loola nag ñu sant ci bu baax a baax ndax diir bu mu ko yoreek léegi ku ne xam ne ni liggéey bi jóge na ci jéego yu baree bari bari bari dox yàlla na ko suñu borom gën a gën a gën a gën a teral yàlla na ko suñu borom gën a teddal bu baax a baax a baax a baax xam naa ci ay kàddu yi rek yu gàtt mm-hmm. mënees ta leeral lépp waaye mm-hmm. loola moom mooy njëlbeenu doxunu doxuy mag ma xamnoo reen mm-hmm. diggante mag Serigne Saliou Touré ok jërëjëf suñu baaba comme ni ko waxee rek kon xam nañ ni daara ji mel na ni ay daara yu bari la woon yu daan daje ñu faru def ko mu doon benn daara mu doon fédération Serigne Saliou Touré euh, jiite liggéey bi kon Serigne Saliou comme ni ko Serigne Baba waxee mel na ni yow yaay jëwriñu fédération man ñu xamnoo i di kàddu suñu baara yi suñu baaba yi ñu bëggoon nga sof ci dara ñu doog a ñëw ci lu diggante Majmahun Nurayni ak Serigne Saliou Touré. ok diggante boobu itam am na lu ma ci xam lu ma ci mën a nettali am na ci loolu loo xam ni ci làmmiñ sëñ bi laa ko déggee am na ci leneen loo xam ni ci làmmiñ sëñ Saliou Touré laa ko déggee naka jekk cees amoon na fédération bu fi amoon. ñu dox tuuti liggéey bi mel lu taxaw sëñ Saliou sëñ Saliou bi ci waa université Thiès di tàbbi waa université Thiès dañ ma wax ne ma li ngeen di dox de bu ñu leeree ne suñ bee leen diggal danaa danañ ci ànd ak yéen waaye loolu faw da koy wax ci làmmiñam ñu dégg ko loolu itam jur ak njoot ñaaw njoot ci man ndax ma ni lii may dox itam dañ ma ko wax rek ma koy dox war naa cee leerlu ma dem toog ak moom laaj ko ne ko mañ mañ ma ko noree nii ndigal li nu mu demee ak lan moo ci aju mun ma bañ banti ma ne ko ba élèves yeeg étudiants yi mun ma luñ ciy def de maa santaane gannaaw gi sëñ Saalum Ndour daal ciy ñëw ci leeral yu gën a xóot dafa wax ni sëñ Sall Touré ma woo gannaaw ba bañ ko siyaaree ne ma dama leen naa bëgg a liggéey loo ne ko damaa seetlu ne école yi ak université yi ñu ngi am ay daayira te mi ngi gën a yaatu ma bëgg nag ñoom ñëpp ñu dajaloo ci benn bunt daal ne ko ba xam mën nga maa doxal loolu bi mu ci génnee mu woo ci ñim ci yaakaar ñu dekkalaat fédération bu njëkk boobu amoon biñ ko dekkalaatee ñu ñëwaat ba ci moom xamal ko ko mu tuddee ko Majmahun Nurayni waaw Sëñ Saal Touré itam moo ko tuddee Majmahun Nurayni waaye yemul dong ci joxe tur lañuy ñuy defal liir buy doog a judd yëpp defal nanu ko mm. mooy daa joxe tur ba noppi taxawu ko loolu suñ tubaa naan walaasimu man laa bi daal di rabbihi ilaa hudaaw xaayida loolu la doonoon ci ñun nit koo xam ni daa sax ci boroomam di wo di womate di ci jëm diirug li ma ci fekkee mënees naa wax ni lu bari wala bu ma mënta wax lépp naa wax ni lu bari moo ko teete gunge ko ba amul sax benn activité boo xam ne ñi ngi koy def nii hmm. te ndigalam maanaam soogew ko hmm. loolu amut eh, keroog bi ñuy dajale cant yi di ko def benn cant nga xam ne boobu sëñ Lamin mu sëñ Bàkk na moo ñëw wëram bu siiw boobu hmm. ñaan ñu ko sëñ Saaliw danañu lool bu ngeen ko defee moo may noppal moo ñu santoon itam nañu yu bari tegg naa leen ko li ma bëgg rek mooy kaye yi bu leen ci kenn man loolu rek laa bëgg digg nañ ci itam lu ne ndax daf ñoo yërëmoon maanaam baat boobu xam naa mooy gën a mooy gën a kii mooy gën a neex a jëfandikoo moom jo daf ñu daan xool ba noppi yërëm ñu yërëm ñu lool ci doxin wi ak bëgg gi ndax kat dañuy wax ne lu ne am na fu ko Sëñ Tuubaa di jaarale waaye ñun ñii bi ñuy dem ci école yi di jàngi bokk ci ay daara taxutoon gëm Sëñ Tuubaa sax taxutoon maanaam dañ cee demoon ngir wuti ji ay diplôme ngir yaakaar un avenir meilleur waaye ci biir loolu dangay dem ba axbabtu bi ngay jàng moo lay gën a xëcc maanaam di la ci sëñ bi ñu bari nag ñu ngi ciy dox doxinu am passif waaye tumuranke ci lool ci mag moo xam ni xam na yàlla mën koo jaamu xam sëñ tubaa sëñ tubaa di ko liggéeyloo mu gunge leen ci loolu nag moo jafe ñun nag loolu am te wuutale ko ñeneen ñu dut ñun kon ànd bi ko sos moom moo ko bëggoon mu sosu bi mu sosoo itam mu ko mosuñoo daje suñuy bënt ñeent walla ñu wéet te laajuma fu liggéey bi toll nan ngeen def lan ngeen di waaj loolu mosumaa fàttaliku fu nu dajee te waxuma lu mel noonu kon daa mel lu ko ñoroon la lu mu bàyyi woon xel la itam ñoro ko itam ngir daf ñoo bëgg a woo ci boppam ndax nit daa gàtt xel ku ne mën naa xalaat ni da koo sos ngir wut mbooloo waaye mosumaa fàttaliku fu wut mbooloo walla wax ñu lu jëm ci boppam tax liggéey bii am ñettali naa ko keroog dama ni keroog am na àddiyee joo xam ne daa waroon dem Touba am ndigal lu mu dajeel lu ñëw Cees ci moom boobu sëñ Siidi Maxtaar moo ko wax ne ko àddiyee waa Cees dajale ko sëñ Siidi Maxtaar yàlla na ko suñ borom dolli ngërëm ak njëkkal moo wax ne ko addiye waa Thiès dama bëgg nga dajale ko loolu dajeeg ñun ñu war a dem siyaare ji Touba keroog biñ dajalee sunu addiye ba waxtaan ci sunu waxtaan wu yàgg woowu ba ñëw fekk ko ci jàkka ji ne ko ñu dañoo bëggoon dem siyaare ji gis sëñ bi waaye sunu àddiye na dugg ci addiye waa Thiès ñu jébbal la ko teg ko ci sa loxo nga booleel ñu ko ci danañu loolu du mu ko def mukk ci àddina ndax luy tas mbooloo du ma ko def daan nañ ca seen mbooloo mi dafa yaatu ku nekk am ci kilifa te ñëpp maase wuñ maa déglu daan ne lii bu ma ko defee nit dana wax ni dama leen a woo ci sama bopp te loolu du sama mbir daan ne damaa bëgg ngeen jël ko ni ngeen ko nosee woon ngeen defee ko noonu dara bañ jee soppeeku loolu euh, daa mel ni wane na ni dara yi yitteelu ko lu dul sunu mbir mi yëkkatiku te lépp tege ci aw yoon ndax am na siyaar boo xam ne daf ñoo wax nañu Sëñ Tuubaa bu ñëwaatoon fekkee sunu jataay man ak yéen yéen lay njëkk jox loxo njëkk mu may jox loxo daani li ko waral mooy man leer na ma ni Sëñ Tuubaa moon boole te yéen li leen war yéen a ngi ci te man xaw ma ba xam li ma ci yéen def naa ko kon daa mel ni loolu yëpp yërmande la maam jëm ci biir maj ma ko dooree ni te loolu itam damay wax ni doy na rëkk doy na dong taw feex ñun la lii bi muy sosee suñ bi muy sosu suñ salture joxe ndigal loolu doy na taw feex ndax moom jëmmam euh, daa doonoon ku ragal yàlla loolu ku mus a jaxasoog moom xam nga ko ci moom maanaam musumaa fàttaliku mu wax nit lu koy sànk man boog mosuma ko fàttaliku mos naa lilay lay won ni bëgg nit ki jëriñu doo nga tax ak du sànq nit am na xel koom goo xam ne xoolal xel koom ak ni mu toll ak yiw wi mu ëmb yëpp da ko woote dajeeg ñu war a jàngi bi mu ko wootee bis bi ñu war a départ man bokk naa ci ñi fa teewoon ngir dem bi mu ma ci mbooloo mi dama uyu ba ma ñëw mu ni ma xanaa da naa jàngiwut ma ne ko ah kay war na maa jàngi waaye jàpp naa ne diir bi ñu fay def du indi jafe-jafe ci ci njàng mi mu daal ne xelkom gi bi ma koy santaane yéen bokk yéen ma leen ci ndigal li ndax yéen seen ndigal mooy seen kaye yooyu ngeen fonk ko ndax dama bëgg ëllëg bu ñuy woote ci xam-xam kenn bañ leen cee mën te bëgguma itam seeni waajur jam leen wala mu jam wala ñu jam ma wala ñu jam yoonu murit ci biir woote bi kon daa mel ni moom li bëggoon rek mooy yaakaar bi waajur yi am ci ñoom ba dugal ñu ci école yi yaakaar yooyu bañ a saaw loolu itam mënees na cee déggee ni daa sos mañ ma ko ni ngir sàmm taalibe gi sàmm itam ñàng mi ndax danga koy seet lu bari ci gone yi ndax eh, ci ci ci sama maas gi léeg boo sooboo dara dañ ci sóoboo bëgg bëgg nag da ni yóbbee ci léeg sax ñu woyofal njàng mi jàpp ne lu woyof la moom nag mu mës sa bëgg loolu daa bëggoon waajur yi yaakaar gi ñu am ba dugal ñu ci école yi yaakaar jooju saa bu nu xëyee gis lu koy dolli waaye duñu mës a gis maanaam lu koy delloo ginnaaw kon daal soosu gi nii la tëddee gunge gi gi itam fii la ko tolloon te sëñ Tuubaa rekk tax këñ maa ngi jëkkulu hmm, jërëjëf comme kàddu yi am na solo lool mel na ni kon dangay leeralaale maanaam diggam ak Majmahun Nurayni ci ak tamit activités yi nga xam ne Majmahun Nurayni mi ngi koy amal muy muy ziar bi ñu koy defal noonu ziar ziar dongo yi biñ ko bi nga xam ne moom lañ ko daan defal année bu jot hmm. waaw ziar bi xam naa sa loolu sëñ baaba dina ñëw ci njëlbeen ki ndax moom loolu fekkee na ko man bi may bokk ci daara ji damaa fekk daara ji ñuy siyaare siñ Saal Touré yaakaar naa activité bi ma njëkk a ànd ak waa daara ji sax mooy siyaar boobu ñu fekk ko biir këram mu toog gannaaw gi ci lañ am xalaatu yaatal ko yaatal gi itam daa am lu ko sooke ndax nit bu la joxee cër ci boppam noo mën a fexe ba cër bi bañ a deltu ginnaaw war nga koo fexe ngir li ngeen sekk sëñ bi dafa daf ñoo wax nañu bi muy ñëw Cees sëñ Saliou daa jël ñeent fukk ci ay dongo dongoy boppam jox ko ko ne ko dama bëgg boo demee nga sax ci jàng ak jàngale foofu itam daara ji am na ay tournée yu bari yu ci am naa loolu day gudd ci ci ma leeral ko waaye daal ñu xam ni moom bi mu ñëwee ci loolu la sax ci jàng ak jàngale ba yàlla dogal nag ñun ñu ñëw ñun nit ñu jàpp ni am na luñ ko war a mën a liggéeyal te sëñ Tuubaa tax mu dajeeg waa Listini ñoom ñu amoon yéene weer wu dee bu ne ñu jël as lëf ci leen suñ suñ borom di baaxee ñu dajale ko jënd ko ravitaillement yóbbul ko ko bi leen ci daara ji fekk see loolu réyoon ci moom lool mu am ci mbégte ba noppi joxe ci ndigal loolu moo sabab ziar bi ñuy def ci moom ñu far tuddee ko ziar dongo yi ndax ñu tuddee ko mooy dañoo gis ne biñ ko ko tàmbalee defal ba niñ ko noppee gis mbégte yu rëy rëy rëy lañu am ci jataay yooyu dafa mel ni buñ doon làmbatu ma loolu moom biñ ko tàmbee yëg nañ ni am na lu ñu daj ndax dafa dafa ñu daan wax naan jëf joo xam ni boo demee ci alxuraan fekk ko fa dem ci wax yeneen bi fekk ko fa dem ci mbindum sëñ Tuubaa fekk ko fa jëf jooju jëf ju mat a jàpp la te te saxal te saxal ko mu waxoon ñu ne ñi sëñ Saaliw bi mu koy jox ñeent fukki dongo yi muy ñëw Cees joxuñu ko lu mu leen dundalee moom moo ñëw ci barkeb sëñ Tuubaa lu koy wuy si wuy si ko ñun ñuy def noonu ba yàlla dogal ziar bi saa bu ñëwee danañ diisoog waa daara ji ci lan la daara ji soxla ci ay koddaay dund ak jàngukaay ba ci sax sëriñu daara yi léegi dugal nañ leen ci xool ñoom lu ñu mën a barkeeloo ci kenn ku ci ne ñu teg ko ci sa loxo ngir seral xolam loolu nag nit dina ñëw ci jataay bi gis jëf ji ñu teg ko mu ni jëf ji de moom jarte woon na lim sax wala jarte woon wone ndax kiñ koy defal gis na ko loolu ñun mës nañ koo jàpp keroog biñ ko jàppee ba ne ko dañoo bëggoon jiital àddiyee ci suba gi ci ngoon gi ñu ñëw siyaare dafa nañu li jëfu mbooloom mi teg leen ko ci kanam mbooloom ba ñoom ñu gis seen jëf su boobaan nag bu ma ñëwee ma mën leen koo seedeel kon daa mel ni loolu benn la ci ay activité Majmahun Nurayni bi muy jëmmi ziar boobu ak jëmmi ravitaillement bi nga xam ni weer wu dee wu ne maanaam ñu dajale suñuy ñaar téeméer jënd ci dund maanaam yóbbu ko ci daara ja te liggéey boobu itam ma soññewaale ci tuuti ndax baax na nit ki baax na lool benn mbir buñ koy def nga xam mbir moomu ban poids la am sëñ Saaliw dañoo wax nañu daala jii ma yor daa diis lool te yéen ma ciy jàppale waaye na ngeen xam ne ni ngeen ma ciy jàppalee ëllëg sëñ Tuubaa du leen seetaan loolu ci ci at yu njëkk ya ñu dox ba mu yàgg mu ne ñu man de leer na ma ni man de leer na ma ni ëllëg fi sëñ Tuubaa ne fa ne loolu man leer na ma daan waaye leer na ma tamit ne mag yéen a fay ne daan ne ndax jàppale ngeen ma ci dayoob jàppale bi bu ne mu ne am ba tey itam ci ci ci biir liggéey boobu am na bis boo xam ni dañoo ñëw dajeeg muy génn ñuy ñëw mu mu delluwaat ci néeg bi biñ tegee jëf ji rek danañu yàlla gis na ko yenent bi gis na ko Sëñ Tuubaa gis na ko ma ni ko boo nu ko seedeelee rek doy na mu ne bu ma ko seedeewu ci tam na ngeen xam ni suñ borom barkeel na ko te dana leen di wuy si ndax xam naa ni ay bëgg-bëgg yu kawe ngeen am daal nañu gone nag bu co bu boo xam gone goo xam ne bu xëyee mënta làmb poosam ba daj dara nga koy am na ci wax yoo xam boo koy wax day foog ni kiy wax mooy mag rek waaye bi si ba ci kanam lépp dana leen leer ma ne ko buñ sañoon mu doon ay camion mënuñu loolu danañ ci yegg kon daa mel ne xeex yi mi mi ngi gën a yokk kon eh, bu weesoo activité boobu itam danañuy amal ab siyaar ci kanamu ki fi nekkal Sëñ Tuubaa jëwriñu yoon wi Cheikh Mouhamadul Mountakha waaw waaw ñu seetaan tuuti ci euh, ziaru dong yooyu nga doon wax noonu ziaru suñu saa yi. ndax sëriñ bi waroon na sa seen taal moo la nii nga nekkal ci suñu baax waaye lu soxla la nga yegg leen ci yàlla Dakar bi nag ñu ñëw Fapal yi taal mooy ay portail ak ceeb suñu la ak ay mu jëm taal loolu fi ñu ne alxuraan ñoo tax li ñu fi mooy suñu baax te muy pour mooy pour bi ngir ñu mën laa mën a fayal kon sëñ bi moo la jataay bi ni ñu ko tënkee woon gën naa yaatu waaye ñeewante la ak ñeewante suñu jëm ndax lii nit ñu nit nit ñu ngi réew mun nga am kon kon bu ñu amee kaw daa mel ni lu ñu ñoo tax ñu ngi nii lenn na mun nga séenee ngay ñëw boo wàññee kaw nga leen da nga xam ne dañu bëggoon waaye bi ma ñu sañ a jàkkaarloo loolu dara dina ko wéy ci ñoom li ñu bëgg nag mooy leer loolu moo ci njëkk leer li des mooy ñii seen liggéey li si quoi du téye ndax wax ci bëri na waaye bu mu bàyyi bàyyi ñun du mu dellu ginnaaw daa loolu ko woon tegoo nañu bu leen ko wàcc bu leen ko wàcc bu leen dañuy si quoi yoon wala ko ñu ngi kon dimbali ko sëñ bi dimbali ko noonu ñii sa kanam ñàkk doole ñàkk kàttan te bëgg ñu doon daa boole woon doon ñu ne woon wala bu ñu juddoo na ngeen topp ci ginnaaw ñu toppoon suñu bopp loolu ci la ñuy sax waaye dañoo sañ ba dañoo sañ ba def ko te ñëwuñu fi yow dala moo la ñu teew bu mën noonu benn bopp yi jiwu ñaa nii kenn ku ci ne na nga ko te def ko daal ndax ñoom li waaw kon suñu saal comme li nga doon wax ci ziar boobu mel na ni kon ziar boobu yéen ko sosaloon seen bopp doon ko ci liggéeyal muy ziarub donga yi mu mel ni bi benn la ci ziar bu ngeen defoon seen diggam moom ci ci ci ziar yi mujj yi la yaakaar naa ci la bokk ko def hmm, ban bii la woon ah deux bu dul deux mille dix huit daal di deux hmm. mooy année bi mujjee jataayu ak ñun ci ci jataayu siyaar. Hmm, gannaaw gi. Hmm. yaakaar naa mille vingt ci biir kër gi lañ ko fekk. yeneen yi ci des yëpp. suñ Cheikh Ahmadou Bamba la yabal. mu ñëw yeewil ko mbooloo mi. siyaar bi nag. boo xoolee image rek da ngay xam ne lu daw yaram la. ndax mage gi ak yu bari dikkal ko waaye teewul bi mu yëgee ni mbooloom ñi ngi ci ci jàkk ji toog daa am bëgg lool ci ñëw saafonteeg ñoom doo ko doo ko doo ko dem loolu nag ak cofeel rek lay wane ak yërmande mooy baat bi ma njëkkoon a wax ndax cofeel gi mooy moom cofeelam ci ñun da daan feeñ ci sunuy jataay maanaam buñ musaana jataayoog ñoom bari waana lu mu daa nettali loo xam ni ñett day wax ni tey de lii mu nettali tey laa koy doo ko dégg mu nettali ko loolu nag bëgg a dalal sunuy xel ci moom mën na koo sabab bëgg itam dalal sunu xel ci liggéey bi ñuy def mm-hmm. maanaam mën na ko sabab itam mm-hmm. wane wax taxawaayam wax fi mu jaar ak sëñ mm-hmm. ndax moom yàlla da ko teel a taw feexal sëñ boole ko ci ñi muy gisanteel di waxtaan ak waxtaan ak ñoom am na sax ziyaar boo xam ni dafa génn daan njëkk may ñëw léeg mu feeñu ma ne ma boo demee ci ñoom wax leen nàngam ak nangam ak nangam kon daa mel ni loolu lu rëy rëy la loolu nag euh, li ko li ko li ko li ko li bokk na itam ci yi sabab lu mbégte moomu mooy moom li ñu booleeg moom Sëñ Tuubaa rek la ndax léeg sax nga gis ñu ne waa këram yi ñoo dajaloo ñëw di ko siyaar waaye moom day xool mbooloo mi boo ko doon natt tey jii ñi ci ñi nga xam ne ci moom lañ jébbalu mënees na leen waaye ñi nga xam ne dañoo ànd ak moom ngir baat bi ko fi teg moo ëpp loolu nag da koo neexoon lool ndax loolu moo moo lay won ni àndin bi sëñ Tuubaa rek la maanaam dara dara rax ko ziar bii nag day ziar boo xam ni daanaka bu ma koy xool damay am lu ma tiisu xol ndax saa bu may xoolaat image rek damay am tiisu xol lool ndax mag daa métti te am na mag fu muy toll yu bari waratu ko dañ ko ko war a teggil ngir gën koo mën a sakkanal waaye moom loo ko teggil lu ne mu tegoo ngir moom gisut gisut gisul yow yow mi koy teggil waaye Sëñ Tuubaa mi muy liggéeyal rek la gis yaakaar naa gannaaw ziar bi ci laa ko dégg mu ni sëñ xamal na ma ni wàccee na ma ci mbooleem lu ma lu ma xamal na ma itam ni ma bis ni ki tey lu ma defati rek maanaam ngërëm la ak tawféex ak yëkkatiku kon moom sëñ bi eh, noonu noonu la daal. ziar boobu moom war nañ koo gën a fonkaat bu baax ginnaaw liggéey la boo xam ni bu mu gërëmoon la ci diggam ak Majmahun Nurayni mu mel ni Majmahun Nurayni seen activité bari na comme suñ suñ suñ baaba suñ saa li mu ci leeral muy ziar bu dongo yi mel nañ kon am na beneen activité bu muy ziar suñ muntaxaa bi ak ziar bi ñuy ziaree sëriñ Modou Mbène Fall di ko def ci gàmm gi waaw yooyu tamit boo ci mënoo dikk ñu xam ko bu baax. waaw waaye sant xam naa balaa ñu dikk ci loolu rek ñu ñu sof tuuti ci ci ci ci ziar boobu ndax mhm. day liggéey boo xamante ni ko Serigne Saliou waxee mhm. day liggéey bu rëy bu mu bu mu bu mu bëggoon lool ci ci ci liggéey yi gën a kawe ci fédération bi yi muy taxawal ci la bokk. Euh, ni ko ni ko yàlla meloon nga xam ni baat bi Serigne Saliou utilisé mooy baat bi gën a bi gën a yayoo mooy yërmande ju mu ëmbaloon mbooloo maa ngi fàttaliku am na bis boo xam ne fële ca. Fathul Wahab di lycée technique cant gi ñu fa doon def bi mu egsee nga xam ne mbooleem daara yi nekk ci école yi rek bu mu musaana am lépp lu mu guddi guddi de mooy ñëw waxtaan ak mbooloo mi tegaat leen ci yoon door a dellu bis boobu ñu ñëw di ko indil añ yi ma gis ko yaram wi xaw a sutaate lool ma ni ko Touré de wax dëgg yàlla mënuñoo am lu la wuutu ci waxtu wi nga xamante ni daan nañ dégg sa kàddu foofu waaye nag ñu ngi la koy jéggal tey ngir nii ñu fekkee yaram wi waaye bu ñu bu ñu mënoon a sax enregistré sa kàddu donte benn kàddu la bu ñu ko digtalee mbooloo bi dana leen doy waaye wallahi ba ma ko waxee dafa ni bërit daan ne du ma nangu mukk ngeen gën maa bëgg Sëñ Tuubaa waaw damay ñëw bu waxtu wa jotee nag ma jël si loola la maaseloon ci di ko ànd ak mbooloo mi ziar boobu am na bis wax na ci wax bu yegg na ci wax ni day tey jii su ma mënoon a ñaan sunu borom ngeen bañ a faatu danaa leen ñaanal ngeen bañ a faatu wallaahi naasib ci ci ci liggéey boobu. liggéey boobu itam li ko waral ni ko sëñ Saliou waxee bi ko waa lycée technique amee yéene ji rek ba ma ñëw ci moom di ko ko wax ne dañoo bëggoon di sàkku ndigal ci weer wu jot lu ñu dajale lu mu néew néew ñu indi ko. mu doon asakay barkeelu ci sa liggéey bu rëy bii ngay def ndax ku ne xam ne ni ko sëñ Saliou waxee ndongo yi jamono yooyu ëppoon nañ téeméeri ndongo waaye kenn du ci yalwaani kenn du ci dem fenn ñëpp moo leen yoral boppam te li muy togg këram moom lay togg ci daara ji loola defoon ñu liggéeyal sëñ tubaab boo xam ne mu ñëw wax ko bi ma ko waxee dañuy sëñ Tuubaa la kenn xamul lu mu doon daan ne dimb ci waxtu wi de kilifa ci nguur gi ñëw na fi di sàkku lu mel nii ngeen di sàkku ngir moom sax dafa wax ni dafa bëgg atum yàlla mu koy indi ravitaillement ci kër gi waaye dama ko gàntal mu ni waaye yéen bu ngeen ñëwee di ay taalibe ni man noonu la ko waxee sàkku lii ngeen sàkku damay xam ni Sëñ Tuubaa leen fi yabal nangul naa leen ko te di ngeen ko man waaye di ngeen ko man googu benn weer lañ ko lañ ko lañ ko yóbbu ci daara ji beneen weer ba ca des mbooleem fédération bi ànd ci di ko defandoo ba tey jii ma lay fédération bi. ah kay ci ziar boobu itam kenn ku ci nekk daana daana daana ziar yi waaye fédération bi mu dajaloo yee di ñëw ci ziar bi ni ko sëñ Saliou waxee dañoo gis ni liggéey boobu <coughs> dañoo gis ni liggéey boobu ñor na ko ñorul yoo xam ni wanewul weneen liggéey wu ko gën a ñor liggéey boobu ba tax ñu ni nag ginnaaw ñun sëñ Tuubaa rek la ñuy sàkku te lii mbégteem la te daje naag bëgg sëñ Tuubaa ziar bi léegi nañ ko faaf di ko di ko dara jaale ndongo yi ni ko sëñ Saliou leerale ñu fay indi mboolem dublu ak di solal ndongo yi ci ci ci ci di leen fóotal sax yokk nañ ko ci nga xam ni bu bu bu yëre yi dajalooyee ñu dajale ko yóbbu ko ci daara ja yeesal ko dolli wàcc ci yenn yóbbuwaat ko te sëriñ Mortala ma nekk ca jàkk ja jiite ko kon loolu moom mooy li ma doon sof ci wàllu liggéey boobu fédération bi itam moom itam mu joxaat ñu ndigal ci yeneen mboolem lépp pour loo gis mu koy def ba ci ziar bii ñuy ziaral ki fi nekkal Sëñ Tuubaa ci at mu jot ci loxol boppam la daa bind lettre bi jëm ci xalif bi di ko boole ak mbooloo mi nga xam ni saa su ñu a dem ci ku fi nekkal Sëñ Saaliw Sëriñ Saaliw ba Sëriñ Mouhamadou Mountakha moo jël lettre bi jox nu ko suñu demee ci turam la ñuy demee mu boole ko kàddu wane ni ñiikat ci man lañu sosoo wàccuwaay wu ñu am ci biir kër Sëñ Tuubaa rek jëmmam jooju moo tax nga xam ni am na bis boo xamante ni ni ko sëñ Saliou waxee dañoo amoon gàtt ci loola ci addiya joo xamante ni daa waroon a dem Touba moom woote ba bis yëpp taxaw ngir nu dem ñu ànd fa maag moom mii ak sëriñ Cheikh Bamba Mbaye biñ fa demee kàddu yi mu wax loolu la wax daal di yëkkatiwaat ab lettre bind ko boole kook loola daal su ngeen demee na ngeen gis Cheikh Ndiaye mu gën leen a booleeg sëriñ bi ngeen wax kon maa leen fi yabal ngir wane taxawaay bi mu amoon ci ci ci loolu nga xam ne moo jox ndigal itam ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa ñu koy ziyaari ji màggal gi itam fédération bi di ko def mu jox ñu ci ndigal xam naa Sëriñ dina ko dina ko génn ndax ndigal ci moom la tab bi mu ñëw ci mbooloo mi ci ni mu ko ko waxee waaye ni ko Sëriñ Saaliu waxee rek ñoo xam ne mbooleem activité boo gis mañ ma ko nooreen di ko def Sëriñ Saaliu Touré moo joxe ndigal yi nu koy def te itam moo ko gunge itam moo ko topp mm-hmm. voilà. ok jërëjëf suñ Baba kon mel na ni Majmahun Nurayni moom lépp lu ñu taxawle ci ndigalu sëriñ Saliou Touré lañ koy taxawlee muy ziarub dongo yi ak ziarub suñu Muntaxa bi loolu mooy seeni activité yaakaar naa ziar suñ Modou Mbène Fall bi ñu xam moom nañ fi gaam gi tamit. waaw ziar ci kii indi ci ay waaw ziar boobu itam. Mm-hmm. xam naa suñu saal bi dina ci dina ci dina leeral ndax dañ daan dañ daan def sunu suñu ziar yi ki fi nekkal suñ Tuubaa itam ñu dem ziar ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall di ko fekk Mbàkke sëñ sëñ sëñ euh, sëñ Modou Aminta mm-hmm. sëñ Modou Aminta booba moo moo fi nekk waaye mu mayoon ñi ci jëmmam itam bi mu yëgee ne rek Cees la ñuy jógee ci ci ndigalu sëñ Saliou Touré mm-hmm. dañuy wax ni yéen de danaa leen may kon ngeen di ma fekk Cees ginnaaw falaay gammo mm-hmm. siyaar bi di ngeen koy def ci Touba waaye loolu di wone ak bi ak matut maanaam ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall ngir ñëw gi ñuy ñëw Touba di fa fekk ki fi nekkal sëñ Tuubaa di ñëwaat Tuubaa di fekk ki fekkal maam Cheikh Ibrahima loolu moom mu mu mu mu settantal ko ba ñun ñu koy fekk si waat Thiès <laughs> mu indi ziar boobu nga xam ni kon looloo tax gàmm gi mboolem fédération bi di ko fekk si di ko fekk si. léegi suñu baabu kon suñu Saaliw dañuy dañuy ñëw ci yow rek ci kàddu suñu baabu yooyu loo ci mën a sos muy ziaru suñu Modou Mbend Fall bi nga xam moom la bi moo ko jiitu. te yaakaar naa tàmbalewu leen ko woon suñu taxaw ci suñ Sidi Mokhtar ngeen tàmbalewu waaw njëkk na sax suñ Sidi Mokhtar ah. xam naa suñu rajo baara man fekkee naa ñu siyaare ko fekk ko ci kër suñ Tuubaa gi ah, suñu laaj baara laaj baara ñu hmm. ko suñ baaba leeralee itam mañ moom noonu daa boole rek hmm. waaye naka jekk daara jenn ju ci ne hmm. daan nga amal activité bu mel noonu waaye mbooloo moo gis rek léeg-léeg yërmande ji mooy tax mbir ma di màgg bi fi suñu laaj baara jógee ñu gunge sëñ sa sëñ sëñ sëñ sëñ ci waxtaan diiru xilaafam ànd ak moom ci mbooleem lu mën a musa woote jëmmal ko bu baax noonu moo wax tam noonu la daan demee buñ musaan di dem ziyaare ji dañ daan dajale sunu àddiyee ñëw ci suñu Sall mu bind bataaxal. jox ñu nañu bu ngeen demee na ngeen ko jox sama bataaxal bi nga xam ne buñ demee danañ ubbi bataaxal bi mu jàng ko ci kanamu sëñ bi. mu ànd ak bataaxal bi tontu ko. ba ni fi sëñ Muntaxa nekkee te yàlla na fi yàgg lool. te ànd ak wér. waaye mbir moo gis rek ak yokkute mi ngi ci am bu baax. ndax. bu njëkk demin bi daana tumuranke man maa ngi fàttaliku ay kaar lañ daan yóbbu kaar kaar yoo xam ni ñetti kaar xaw ma ñeent ñaar ba ma ba ma fàttalikoo suñ lamin mu suñ bàkk man na tam ñu ngi koy nuyu bu baax daal di ànd ak ñun buñ nee fanaan këram xëy doo ko dem ci ki fi nekkal suñ tubaa suñ borom di njëfal tawfeex ba daaw biñ ko wàññee fukki bis ak juróom ñoo daje ci kër suñ muntaxaa ngir jëmmal ziar boobu sëñ Muntaxa itam ni ciy sant bu baax suñ Cheikh moom sëñ Abdou Latif ndax jàppandal nañ lu bari yombalal nañ lu bari ndax ci at mu njëkk ma boobu sëñ baawam yi mi ngi Dubaay ñu daan def bu ñuy ziare ji dañuy njëkk a jaar ci ab barab doo ko dem siyaare ji hmm. ki fi nekkoon sëñ Tuubaa loolu yóbbu woon nañ ci ñu jaar ci Xuru jaar nañ fi ndaam hmm. jaar fi njaareem waaye jataay yooyu da daan am solo am amin solo goo xam ne jéggi na dayo hmm. eh, bi ñuy jaar Xuru sax xalifa doomi sëñ mbay sëñ jaxate bi fi mujjoon am nañ fa fekk nga xam ne jataay ba nettal nañu yu bari yoo xam ni suñ Saliou Mbacke ci boppam moo ko wax jëm ci jëm ci dëkk boobu ñu ñëw. ba noonu sëñ Mountakha bi mu ñëwee nekk jëriñ sëñ Tuubaa ca at moomu nag am na at moo xam ne dañoo tànn njaare dañoo tànn Daaru Minam boobu sax fekk fi baaba ndax dafa fekkoon mu tukki baaba am am wóllëreem bu ñu booleek sëñ si Abdou Latif bi ñëwee dajeeg fan yooyu sëñ bi nekkoon ci xërwatu sëñ Muntaxa nekkoon ci noppalu mhm. ci biir noppalu kooku ñu ne itam gis suñ sëñ Muntaxa taxuñu woon a jóg mhm. liñ taxoon a jóg mooy Daaru Minam day barab boo xam ne suñ Tuubaa dafa nekkoon mhm. dëkkoon fa sëñ Basiiru ñu denc ko fa ñu ñëw di topp jeexit yooyu ngir siyaare barab bi moom lañ boolem ak ak ay nu raxmat yi bu fa yendoo ba ngoon daal di fay jógee dem aynu doog a doog a doog a waaye nag loolu teewut amoon nañ mbébétu itam doon na doon nañ mbég lool ci jataayoo suñ Sëriñ Muntaxa waaye loolu mbaxuus rek lañ ko lañ ko defoon mm. ñoon nañ fa dem yendu fa buñ ko gisee ñu xam suñ taw yàlla buñ ko gisul itam ñu ñaanal ko te jàll mm. ci eh, ci yeneen barab yi mm. fa yendoo ba ngoon suñ sieblat yi fekkuñu fekkuñu daaree kaamil daan ñuy ñu ne sëñu saaxaar mu sëñ Basiru hmm. moo yéen ak moom yéen a yendu ci pénc mi ci yéen ba suba ba ngoon nee na bi mu xëyee ñëw ci pénc mi ba gis mbooloo mi daawut fu mu toog rek hmm. di waxtaan ak ñoom yendu fa ba ngoon mbooloo mi dem mu ñibbi këram daal di koy woo ne ko hmm. ñii ma gis de pas-pas bi ma gis ci ñoom bu ma sañoon sëñ bi day jataayoo ñoom ne ko bu ma xëyee dinaa dem daal tansiil fekk ko fa wax ko pas-pas mbooloo mi loolu suñ si ablatif mi ñu wax xamal ci guddi gi bi ñu xëyee ci suba gi itam mu ñu sëñ Muntaxa neen li mu bëgg mooy ngeen ñëw ci Daaru Minam daje fa moom mu ànd ak yéen dem ci sëñ Siid Muxtaar mm-hmm. ñu jógee kër sëñ Lamin ñëw Daaru Minam mm-hmm. jataay boobu doonoon jataay bu yéeme ñu jóge fa dem ci suñ Siid Muxtaar daal di yeeweeku mm-hmm. ca dëwén sa suñ borom dogal moom muy jëriñ yoon wi mu may ñu ci boppam loo xam ni boo ko doon topp doo gis ñu bari ñu ko may ndax biñ ko ñaanee rek ne ñun de day mbooloo mi day mbooloo mu yaatu te bari ay kuréelu kuréelu yu xasida ñu bëggoon nga may ñu ñu fanaane mawlud ba fajar bu fekkee nga jiite ñu fajar mën ñoo yeewi mm-hmm. fekkee loolu day diis itam loo ñu tànnal rek ñu ànd ceeg yow sëñ si ablatif bi mu ko waxee dañu ko niñ ko bëggee ñoom naa leen ci fekk si ndax loolu sama tawféex la noonu la ko waxee ñu fanaanee jàng ba ci suba ga mu jóge ci jàkka ji ñëw ci jiite ñu fajar ñëw ci mbooloo mi waxtaan waxtaan bu yàgg itam te yéeme ca at ya ca topp itam noonu lañ ko def ba corona bi ñëw bi corona bi jàllee itam ñun itam ñoo jàngat jàngataat ba xam ni ka sëñ bi fii mu toll di ko génnee ci fajar gi dana metti nañ ko ñaan soppi waxtu wi moom buñ ko ko ñaanee itam mu ñu da ngeen naan def bu ngeen ci soppi dara saa bu mu mënee ñëw ci yéen rek danaa ñëw saafanteeg borom bi loolu moo sabab léegi ñu ñuy fanaanee jàng ba waxtu bi muy ubbi mm-hmm. waaye ñu ngi koy sant baax di ko gërëm di ko doolee ñaanal ndax kat yëg nañ bu baax a baax ak yokkute mm-hmm. maanaam ci ànd gi nu ànd ak moom fekkoonte ne am na lu nu tumuraanke mm-hmm. moom mottali na nu ko ndax kat eh, xalifa sëñ Tuubaa mm-hmm. du ak judd rek moo koy def nit sëñ bi ci boppam mooy tànn ñi ko gënal mu liggéey loolu loolu mën naa ci nettali misaal yu bari yoo xam ne sëñ Saliou Touré ci boppam moo ko daa wax daan wax naan làmp bii ngeen di gis làmp làmp yii di leeral làmp yi di nekk ci néeg mm-hmm. mu ne xalifa yii di ñëw di dem mi ngi mel ni làmp bu ñu branché rek mm-hmm. mu tàkk ba mu yàgg mu burle mm-hmm. ñu wekki ko defaat beneen mu daan ne jëmmi làmp bi mooy soppeeku waaye jëmmi courant bi alimenté làmp bi moom mës sa soppeeku mu daan ne ku fi toog rek Sëñ Tuubaa nekk ci ginnaaw kon loolu mooy eh, ziar bi ñuy amal ci kanamu ci Touba ziar bi ñuy amal itam ci fii ci Thiès ci xalifa général des Baye Fall suñ suñ suñ Cheikh jëmb daal na suñ borom dolli ngërëm ak ak njéggal ak yërmande moo ko mayoon dañ daan dem Touba buñ demee siyaare yi ki fi toogal suñ Touba bu ñu fa jógee jaar ci ki fi nekkal maam Cheikh Ibra Fall wala bokk ñu njëkkee ci ki fi nekkal maam Cheikh ci suba gi gannaaw tisbaar gi ñu dem ci ki fi toogal Sëñ Tuubaa am at moo xam ni bis bi xatoon na lool ci ñu boole ñaar yooyu bi siyaar bi jàllee ba ñuy dem Tuubaa ba ñàngoxoo mu ne ñu lool sax moo ma gënal saa bu ma ñëwee Thiès ma mën leen faa fekk loolu def nañ ko ñett at ci kanamam ba tey jii si yem di mu sëñ mu sëñ Modou Mende moom moom yoon wi laa yeesalaatal ñu digal loolu yàlla nag suñ borom bàyyi ba ca kanam a waaye loolu nag yemuñu ci dañuy def dañuy defit képp ku bokk ci sëñ Tuubaa te ñu xam sa pas-pas mu wér ñu am ak jaxasoo ku wér maanaam ci jaxasoo ci wet yëpp loolu moo nu yóbbu ci ñu jaxasoo sëñ sut mu suñ sooy bu ak ñeneen ñu mel ni moom ba saa bu buñ soxlawee daara ji rek hmm. ci lu ñuy amal ci barab hmm. ñu mànkoo wuy leen hmm. léeg itam danañuy sànn ay bis yoo xam ni danañ dem ci barab maanaam dundal fa daara ji jëmmal barab bi wéttali ka fa ne maanaam ngir jëmmi suñ Tuubaa loolu def nañ ko Poroxaan te ñu ngi waajal yeneen barab itam yoo xam bëgg nañ faa dem mel ni Daaru Muxti ak yeneen dem fa ka ka fa ne ñu wéttali ko ci ak guddig lëmb bu nu xëyee wàññeeku mm-hmm. yooyu daa mel ni loolu mooy waaw jërëjëf sëñ Saliou comme ni nga ko waxee rek ci activités yi nga xam ne man moom loolu ñu ngi koy amal kon loolu lu mat a xam la ndax ñu bari daanaka mañ moo nooré ni kuréel gi rek lañ ci xam te daara ju mag la joo xam ne mi ngi def liggéey yu am solo ci lépp nag ñu ngi ko wéet ci ndigalal sëriñ Saliou Touré ak liggéey lu sëriñ Touba mel na ni activités yooyu suñ baaba xam naa lu jëm ci wàllu relation euh, relation bi nga xam ni relation intérieure bi nga xam ne mañ moom am na ko ak yeneen daara yi yooyu boo ñu ci mënee indi ay leer mën ñu isu tarxee ak yeneen daara yi comme tëdd subaa nag daara bari yoo xam ne ñu ngi fii Thiès am nañu relation ak mañ moom la ok nga dëgg sëñ bi daara ji ni ko sëñ Sall waxee rek moom day daara joo xamante ni bu dee lu jëm ci diggam ak mbooleem daara yi nga xamante ni ñoo ne Thiès hmm. damay faral di wax ni. ma ñëwoon nag seen alal la mm-hmm. loolu nag mënees na ko firi ba mu leer naññ mm-hmm. ndax man ma xundarin day fédération boo xamante ni daa lëkkale ay daara mm-hmm. yoo xamante ni dañoo nosoon ci benn nos rek di ànd di liggéey te ñëpp nekk ci biir ay école waaye kenn koo ci jël ci ñoom wala ñenn ñoo ci jël ci ñoom rek am na daara joo xamante ni ci daara yii ngay bëgg nga bëgg a wax maanaam fa nga fa nga fa nga fa nga toqee fa nga màggee muy ci sab koñ wala muy sa daara tarbiya wala muy sa daara ba ñëw sos ci sosu ci Majmahun Nurayni mhm. kon day mel ni Majmahun Nurayni moom alalu mbooleem ñi fi nekk la ci daara yi mhm. moo xam tasawul subaan la moo xam taysirul asir mhm. la moo xam asiru maal abrari la moo xam sopp sëriñ saalibu la moo xam makaarimal axlaaq la moo xam moo xam moo tax kenn ko gis rek ci ci ci mbooloo mi te bokk Majmahun Nurayni rek amalante na ak mbooleem daara yooyu ñoom ay relation yu rafet a rafet a rafet di sant bu baax a baax itam suñu diggante yi ngir jàpp giñ ci jàpp ndax kenn ku ci nekk rek am nga ci membre boo xamante ni mu ngi ci daara ji di ci doxal bu baax a baax a baax te oyofal goo xamante ni ak xam ni liggéeyal suñ tubaa bii muy liggéeyal suñ tubaa fii ci mañ ma xundoree ni mm-hmm. foofee la koy ñooñu la koy defal mm-hmm. tax wax dëgg yàlla amul genn gàllankoor goo xamante ni rek mm-hmm. dinañ membre yi ñu ngi koy yëg ci seen daara yooyu jëmale ko ci biir liggéey bi loolu mbooloo mi itam di def ay ay ay guddi ajjuma mm-hmm. di ko jaxareel yenn daara yi mm-hmm. ngir diggante bi di gën di di gën di ratax mm-hmm. ñu gën di xam euh, lan moonu lan moonu boole dëgg-dëgg waaye macha allah relation yu am solo la yu ñu santee suñ tubaab bu baax a baax a baax te loolu itam di ndigalu suñ Saliou Touré ndax toog nañ fii ci jàkk ji mbooloo mi bari loolu mu digal lu sax ni léeg-léeg mbooloo mi day leen ko yëkkati di ko yóbbu ci gox yi ci gox goxaan di fa def ngont yi di ko dajale boo gisee ngont yi itam ni ñu koy defee loola loola itam nga xam ne kon ndigalam loola mm-hmm. moom la ñuy fexee sàmm mm-hmm. kon loo gis ñu def ko rek ni ma ko waxee woon nga xam ni kon moom ni ko sëñ Saali waxee tette gi mu tettee mm-hmm. daara ji dafa yéeme nga xam ni bàyyiwul dara ci li ñuy def dara dara dara lenn lu ci nekk rek léeg ñu def dara sax bu ñu xëyee ba ma ko wala sëñ Saali siyaar ko dana ko dana ko joyant wala mu wax ko ci loo xamante ni boo lëggee dana dañuy soppi doxin wala danañ ci gën a am Pastef kon loolu moom mooy relation yi ci am relation yooyu itam moom moo génn ba ci biti mboolem fu daara nekk ci dakaar njëkkee ko ci waa xadaayul fadaayil bu bu bu Dakar Pikine ñu bu baax a baax ndax mbooloom mi bi muy door a sosu ci fédération amalante woon nañu ak ñoom ci ay liggéey nga xam ne lu ci bari ci wàllu organisation maanaam jële woon nañ ko ci ñoom ñu yaatal ñu ci loolu loolu dimbali ñu ci baax a baax baax. Mm-hmm. loolee di dox di dox di dox ba tey jii Hizbut moom li nu booleeg moom. Mm-hmm. Eh, njëkkoon na sax ndax saxari bu Cees gi mm-hmm. eh, ñu ci bari ci daara ji ña tey ñu ci bari ci daara ji jaar door faa nekk waaye ku ne fàttaliku ne ziyaar bi ñu bidaar bii ba ko jiitu Serigne Youssou Diop ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax ziyaar mboolem Hizbut fekk mbooloo mi di jàng mu amee ci ab jël dem ci sëriñ bi waxtaan ci moom sëriñ bi ne ko nag damaa bëgg jox naa leen ndigal ci nga jaxasoo ak ñoom bi mu ñëwee itam sëñ sëñ sëñ sëñ Abdoulatif di ko leeral sëñ bi sëriñ bi feddaliwaat loolu joxaat ñu ndigal itam ngir ñu gën a jaxasoo ak ñoom loolu kon di mel ni biñ ko bëggee itam fekk nañ ci ndigalu suñ tubaab bu ñu ci boole waaye loolu moo dox suñu diggante ak mbooleem fédération yi nekk ci biti dëkk bi ak mbooleem daara yi nga xamante ni ñi ci biir dëkk bi ak ak ak li ko wër. jërëjëf sëñ Baba mm-hmm. kàddu yi am na solo lool loolu xam naa dañuy ñëwaat ci sëñ Saliou ndax mel na ni euh, relation boobu gën naa gën naa yaatu loolu ci ci Majmahun Nurayni diggam ak euh, Hizbut Tarqiyyah ak diggam ak yeneen daara yi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yi comme ni ko sëñ Baba waxee am na daara ju nekk fee Dakar muy Jaalibatul Maraahib nga xam ni. Euh, su jëwriñ foor yi jiite ko nga xam ñun foofu lañu nekk liberté mel na ni am na bis bu ñuy taxawal ci koor gi sax mañ moo nooree ni ñoo koy jàng ñoo koy fanaanee jàng daanaka ñu ngi ko tàmbalee deux mille deux mille vingt deux lañ ko commencé woon ba ren gi daanaka ñoom it ñoom ñoo ko taxawaat waaye comme relation yi boo ci mënee gën a andi ay leeral nga xam ni gannaaw point boobu mooy bu ñu andiwaatee beneen question rek mooy doon suñu tëjug waxtaan. waaw relation yi de hmm. xam naa li sëñ Ba wax sax yokk ci lu bari dana. daa jafe waaye ñu xam ni rek Sëñ Tuubaa moom bu lay bu la yëkkatee dana la booleeg ñu la gunge ci biir boole boobu nag damay jàpp ne sax boole bi ci gën a rëy mooy bi ñu ànd ak waa Hizbut Tarqiyyah ndax loolu sàkkuwuñu ko sëñ bi ci boppam moo nu ko digal loolu nag ndigal daa barkeel ndax day mel ni leerug fajar looy gën di dem rek muy gën di leer loolu nag mën na moo sabab ubbeeku gi jëm ci daara yëpp ndax tey jii mboolem daara joo xam ni bu njëkk xamante dong lañu sekkoon dañoo jàpp ne ndigal loolu ñu sëñ bi boolem nag yow ci nga bokk maanaam dañuy gën a ubbi suñuy bunt maanaam jëm ci jëm ci yaatal liggéey bi hmm. loolu nag dana tax nit ñi gën ñoo ñame dana taxe nit ñi gën a xam ñun ci lan lañ ne ak lan moo ñu tax a jóg kon maa ngi siyaare mboolem daara yi nga xam dañoo ne Cees ak yi ne biti Cees tey safoo mañ ma xullooree ni ndax euh, safoo gi du daara yi rek damay wax ni bari na koo xam ni mañ ma xullooree ni mi ngi sedd xolam te moom xamut sax fu siège bi nekk xamut sax jëmmi liggéey bi nu muy doxee waaye seenu njàng la topp ba mu rëy ci moom bariwaana koo xam ne itam liggéey yi ñuy def dana jël àddiyaam ju bari def ko ci te ñun xamuñu euh, duñ ko xam moom itam xamut sax jëmmi liggéey bi waaye rafet ci njort ak jàpp ne Sëñ Tuubaa koy defal rek loolu moo sabab maam ñu koy def mm. kon daa mel ni yaatu googu maanaam moom lañ ci am ba tey itam ci kilifa yi mënees naa wax ni eh, damay bañ a dugg ci lim waaye moo tuddee suñu Lamin mu sëñ Bàkk Madina tudd sëñ Cheikh moom sëñ blative tudd Cheikh Ahmad Bamba Touré mi jëwriñu sëñ Sall Touré daanaka day yóbbaale ñëpp ñu xam ni eh, am nañ ak yaatu lool mm-hmm. suñ digganteek ñoom ci fànn yëpp Euh, mosuñoo bëgg dara ci kilifa gu mu mën a doon maanaam mu jafe hmm. loolu nag ak ubbeeku la ak jàpp ne ñun hmm. lañu ne maanaam lu baax la hmm. kon yàlla nañ ci sëñ gën a saxal yàlla nañu sëñ bi gën a ubbi maanaam jëm ci ñëpp ndax kenn ku ci ne liggéey bii buñ sañoon ku yeewoo Cees ñu ne yow koy bokk yamuñu sax ci loolu waaye képp ku yeewoo Cees te yëngu ci sëñ Tuubaa boo nu wooyee du la tëjal sunuy bunt danañ fexe ba def la ni suñ bopp ndax ñun genn jubluwaay lañu am benn bëgg lañu am lenn lañuy ñuy wut mooy Sëñ Tuubaa loolu moom lañ mës a xam te fas nañ yéene itam sax ci suñu kéemtalaay kàttan waaw koy jërëjëf Sëñ Saalihu mel na ni euh, waxtaan wi am na solo loolu xam naa waxtu yi moo ñu xaw a njatt rek waaye kon doon na gën a yaatu waaye sant nañ baax a baax a baax ndax ku ko déglu rek di nga xam lu baree baree bari ci Majmahun Nurayni kon xam naa dañuy yemale foofu kàddu yi bu ko defee nga tàggatoo après jox suñu baaba mu tàggatoo ñu ñaanalante ba beneen yoon jërëjëf ñu sant bu baax xam naa damay fàttaliwaat sama bopp fàttaliwaat ñi ma bokka liggéey bi ñu gën a farlu rek ndax li ne sunu kanam bari na ndax daara ji. ba léegi xale la ñun euh, lu bari damay wax naan xam-xam bi ñu war a am dëgg sax ngir doxal liggéey bi maanaam amuñu ko waaye nañ ci nekk rek ndax ku mës am suñ tubaa la jox te xam nañ ni buñ ci saxee te teggiwuñ suñ tànk faw lu baax lu ne mën nañoo dajeeg moom kon nanu gën a góorgóorwaat nanu gën a jaajuwaat maanaam ci liggéey bi ci ngont yi ñuy woote ci ziyaar yi ñuy def ak lépp loo xam ne action sociale la te dara di ko def maanaam ñu gëntee farlu ndax nit kat Sëñ Tuubaa bu ci ne da nga cee war a mar mar woo xam ni foo ko dégg rek te mu wér waratoo ci am sago te liggéey bii moom am na lu ya yaakaar ci ne maanaam lu wér a wér la ci sëñtubaa Tuubaa ndax ni ko sëñ Ba waxee sànq yaakaar naa suñ Sall moom bëgg ñoo jay taxutoon mu àndul noonu yàlla xafaa yaa behind xal bi noonu kon bu doogeek ñun xool ba mu yàgg mu daal li ma bëgg yeneen ci te li may ñaan suñ bu fekkoonte ni am na ñu dul faatu ma ñaan yàlla mu bañ leen cee boole boobu jàpp ne liñ ne daa war a wéy te sax maanaam moo tax kon luñ ci mën a dolli rek lu ñu gën a góorgóorluwaat rek maanaam nan nan ko def te jëmmi sëñ Tuubaa tax ndax kat daara ji ñu bari jaar nañ fi waaye biñ demee wàññiwut dara ci liggéey bi ñi fiy jaar ak ñiy ñëw dafa mel ni dem gi ak toog gi teewu ko yëkkatiku teewu ko yokk loolu nag li ko waral mooy Sëñ Tuubaa moo ne ci biir Sëñ Tuubaa lépp lu ne ku ci jàpp ne dara nga fi nga teg sa loxo boo ko teggee mu woyof teggil nga xool keroog ngay xam ne ndekete mbir mi yaa ko tardeel kon nañ ci nañ ci gën a góorgóorlu gën cee taxawaat ñi ngi sant ñëpp sant mboolem kilifa yi ñu sekkal dëkk bi sant ak gërëm bu baax a baax Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan doollee ñaan bu baax Cheikh Saliou Touré suñ borom dolli ko ngërëm di sant itam sunuy kilifa sunuy waajur ak mbooleem ku ma bokkal ndax kat seetaanuñ ma benn yoon ndax am na ci noonu loo xam ne buñ ci taxawoon hmm. jafe-jafe yu bari mën naa am ak ñi ñi nga xam ne ñoom lañu àndal te Sëñ Tuubaa rekk tax hmm. ndax kat nit ki boo demee ba tumuraanke woo benn damay wax ni li ma gën a sante yàlla mooy musuma musuma booleek ma jaxasoo koo xam ni hmm. amul lu ma jàngal lu ma lu ma lu ma mën a jëriñoo kon nag liggéey bi maam mi ngi noonu sunub liggéeya nañ ci gën a góor góorgóorlu te mu gën a wér ci ñun ñu ngi sant bu baax itam suñ sayit ci invitation bi di ñaan itam bu baax a baax émission bi suñ borom gën koo yëkkati gën koo nangu te gën koo barkeel ci barki suñ Tuubaa ndax kat lii am na solo ndax dana tax ku xamutoon daara ji nga gën koo mën a xam nga gën a mën a xam activité yi gën a mën a xam ku ñu yàgg a gis itam ñuy dem ci sëñ Sall Touré ñëw nga xam ne ñii ndekete seen jaxasoo beeg sëñ Sall Touré lii moo ko waral ndax kat nit ñi dañuy àtte te duñ laaj kon émission bi yëpp leeral na loolu te moom itam lim ñu bàyyee yàlla bu ci iblis dugg ba di ko yàq yàlla na gën a jëm kanam ndax loolu bëgg-bëggam la woon dafa bëggoon lii mu wocc sunuy loxo maanaam ñu wéyal ko ba keroog ñu dajeeg moom ndax am na ci ziar boo xam ne dani jëf jiikat bu mu daggati damaa bëgg saa su ne muy am te muy gën a jëm kanam kon loolu mooy lim ñu sas bu loolu weesoo itam eh, may soññaat sama mbokk bi yi nga xam ne ñoom laa bokk ñoom laa bokkal daara ji te ñi ci ëpp nekk ci école yi ñu gën a góorgóorluwaat ci njàng mi ndax ñun ku ñàkk yaakaar itam ñun ñàkkunu ko ndax genn yaakaar lañ am te mooy sëñ te xam nañ ni sëñ tubaa nit nekk ci mu wér nga xëy ne sama morom yëpp raw nañu man maa torox loolu musu musee su koo dégg te duñ ko dégg ba faaw musuñoo jël sunu yaakaar wékk ko ci njiisum réew wala boroomu alal wala keneen ci sëñ rek lañ ko mos a wékk kon nag loolu war naa tax ba ku ñu bokkal classe yi ñu góorgóorlu ci mën la ci mënin woo xam ni maanaam danga xam ni kat ñooñ Sëñ tubaa ñu am fulla lañ ci lañ ne kon nan ci nan gën a jëmmalaat sëñ bi gën a ci liggéey bi jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Saliou kàddu yi am na solo loolu ma leen xam naa sëñ baaba dañuy tàggatoo rek bu ko defee ñu yemale fii waxtaan yi hmm. waaleykum salaam eh, sëñ Seydou jërëjëf sant nañu bu baax a baax a baax a baax di la sant bu baax ci jotaay bu am solo bi ak ci xam-xam bi ak euh, wax dëgg yàlla teggin yi ci liggéey bi di la ci ñaanal di ñaanal télé bi sunu borom yokk ko ndax sunu sag la sunu tawféex la waaye nii rek la yal na sunu borom gën a jëmlee kanam jotaay yi ñu ngi koy topp bu baax a baax jotaay yu am solo la lool wax dëgg yàlla yàlla na ko sunu borom gën a kawel di sant ñëpp tey gërëm mboolem daara ji ci ñëpp rek fu membre nekk ci réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi lay jox sunu loxo di la jéggalu te di la ñaanal yàlla sunu borom defal la tawféex ndax wax dëgg yàlla mbooloo mu yéeme mooy mbooloo mañ ma xunda reen ñu bëgg Sëñ Tuubaa rek a fi nekk ñoo xamante ni loo leen teg ci Sëñ Tuubaa rek attan nañ ko te sañ lañ ko te ko te duñu seet fu ñu leen jëme di sant bu baax a baax itam jëwriñ ci ci rafetalu liggéey bi ci yaatalu liggéey bi ak ci jox ñëpp nopp wax dëgg yàlla euh, teg na ko ci ci ci ci ci ci ci tegukaay yoo xamante ni dara génnu ci ndigalu ndigalu sëriñ bi loolu nag dañ ciy santaat sëñ Saliou Touré bu baax a baax ndax tànnee fam la itam kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko suñu borom wéral yàlla ko suñu borom may kattan yàlla xel mi gën a jub yàlla nay yeewu ci sëriñ bi te di ci fanaan rek ndax loolu su ko defee rek bu ko sottee ci mbooloo mi bëgg lépp dinañ ko am waaye li sant itam mbooleem bànqaas yi nga xamante ni ñoo seqal liggéey ci mbooleem commission yi ca nekk ca bopp ba ak jëwriñu daara yi ñu ngi leen di ziar di leen sant di leen jox seen wàccuwaay te ñaan sunu borom ni ko sëriñ Saliou waxee rek nañ jàpp te xam ni lu dul liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek liggéeyal Sëriñ Tuubaa moo ko ñi nga xamante ni nag ni la ko waxee ci ñi nekk ci école yi nañu xam ni la suñ Saliou Touré waxoon mooy seenub liggéeyal suñ tubaab mooy njàng mi ngeen nekk na ngeen fexe bu leen ci kenn kenn kenn raw na ngeen fexe bu leen ci kenn kenn kenn raw am na bis yoo xamante ne daan nañ fa ñëw yor ay jukki xasida bu nu agsee lam ñuy wax mooy dama bëgg ngeen teg seen jukki yi te jàngi seen leçon yi su leçon yi mokkee ba noppi su ci jukki xaje ngeen def ko su ci xajul ngeen dem tëddi ba suba ngeen delluwaat ci école bi xam ni seen liggéeyal Sëriñ Tuubaa mooy seen mooy jàng école loolu nag ñu ngi koy delloo di ko fàttali di ko fàttaliwaat mbooleem ñi fi nekk xam ni kat liggéey moom mooy ak jaamu yàlla te sunu borom fii ñu muy indi ci école yi ngir ñu liggéeyal ko moo tax suñ ko fi bàyyee di def leneen nañu xam ni bàyyi nañu liggéey Sëriñ Tuubaa te loolu kenn du ko def. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw kay jërëjëf sëñ Saalihu Fall sëñ Baba sant nañu baax a baax ci jotaay bu am solo bi ak ni ngeen ñu ko nangule di ñaan suñu borom nangu ko rek nangu liggéey bi ci barke Cheikhul Khadim sëriñ Saalihu Touré mi nga xam ne moo ko jiti woon suñu borom yokk koy ngërëm ak i leer barke Cheikhul Khadim ñu ngi sant bu baax waa Majmahun Nurayni bi yëpp di sant suñu Mbàkke ak mbooleem ñu àndaloon ci liggéey bi di leen ñaanal tawfiq kon xam naa dañuy yem foofu émission bi ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah Bani